itam mu la woon nit koo xamante ne saa yoo ko fekkee rek ci dimbali jaami rek euh, ci lay dox ndaxte ay seede yi nga xamante ne daanaka teg nañ ko ci ndoddam lépp rafet macha allah te lu baax rek lañ ko euh, euh, xamee te bés bi itam. firndeel na ko ndax képp koo xamante ne day wax rek du àggal ndaxte ay jooy itam lay bëgg a def ndaxte ki nga xamante ne daanaka moo fi génn ay seede rek yu baax lañ ko xamee moo tax it li ñuy wax rek saa am na ñi nga xamante ne ci li ñuy def am na ñi nga xamante ne ci ay seen i jëfin am na ñi nga xamante ne itam ñi ngi fi ñu toog di def nu ne waaye bu ñu xamee ne bés bii dana ñëw dinañ daal di ragal Allah subhanahu wa taala waaye itam ñu daal di bàyyi xel rek ne lépp loo xamante ne dañ koy def ne ay caaxaan ñu daal di ko baax ndax bés bi bàyyiwul sëriñ bàyyiwul baadoola bi bàyyiwul ko am ki bàyyiwul kenn waaye nag ñu ngi nii di ko waajal di ko jullee donc euh, li nga xamante ne mooy euh, Euh, maanaam julleem gu mujj fii nga xamante ne dañ ko koy defal euh, sang nañ ko mooy sangeel gu mujj gi nga xamante ne dañ ko ko defal waaye itamit dinañ ko gunge muy gungeel bu mujj bi nga xamante ne dinañ ko defal te itam di ñaan allah subhanahu wa taala rek mu euh, xare ko àjjana ndaxte alhamdulillah am na njort gu rafet itam ci moom te itam ndaw gi mu doon dem na demee na ndaw waaye lim fi def ndawut lim fi bàyyi itam monument la te ñu xam ne itam nekkul woon képp itam euh, ab sëriñ wala nekk fu woon képp ab leneen waaye tamit responsable la woon ci nga xamante ne euh, ci gox mi di euh, Kaolack di Medina Baye di fépp foo xamante ne maanaam mooy addunia di représenter Sénégal fépp fi nga xamante ne daanaka ci àdduna bi la di dem ay Maroc di dem ay États-Unis di dem ay Tunisie di dem fu ne naam loolu moo nekk noonu waaye nag ñëpp génn nañ ñëpp génn nañ ñëpp itam euh, ñëw nañ ngir gunge ko li nga xamante ne mooy euh, këram gu mujj waaye nag xat na xataay goo xamante ne kenn amul sax foo euh, teg sa tànk ndaxte itam gis nañ ne xalif général ki nga xamante ne daanaka moo fi ne moo fi toogal kilifa gi moo fi toogal Baye Niass mi ngi fii suñu wet mu ngi fii di ñu etoo waaye itam di déglu taalibe yaa ngi sikkër doomam Abdoulaye mu ñëw jotal fa lépp lu mu waroon a wax kon ne ñoom fii amuñ fi wax lu mooy xamal leen kii tëdd kan la rek salaamaaleykum wa rahmatullah lata bismillah ñu wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mbokk yi wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yow yàlla yal na ñu yool ci suñ musiba yaa rabbi yal na ñu wattal lu taalibe mbokkam jullit a ngi nii ñuy tàggoog moom. ne mbokkam taalibe mbokkam jullit a ngi nii ñuy tàggoog moom. yàlla moo ñu sant. yàlla moo ñu sant. ànd moom gunge ko. ñaanal ko yàlla. ñaanal ko yàlla it. liñ koy liñ koy ñaanal yàlla yëpp. liñ koy ñaanal yàlla yëpp. yal na fekk foofa ci yàlla lu gën a lu gën a kawe suñ njortu yaa Rabbi jullit la ne jullit la li tax mu doon jullit yëpp li tax mu doon jullit yëpp góorgóorlu na ci ci dundam def ko góor góorgóorlu na ci ci dundam def ko nitu alxuraan la niti la nitu jàkka la niti jàkka la jullikat la jullikat la woorkat la oorkat la lépp loo xam ne dina dëgëral taalibe ak jullit. lépp loo xam ne dina dëgëral di. taalibe ak jullit. loolu yëpp def na ci kem kattanam lim man. loolu yëpp def na ci kem kattanam ci lim man. te nit bu defee kem kàttanam rek. te nit bu defee kem kattanam rek. def na li mu war a def lépp. def na li mu war a def lépp. mu des yàlla. mu des yàlla. nga xam ne nag moo koy nangul. mi nga xam ne nag moo koy nangul ay jëfam yooyu. yal ko yàlla nangul. yal na ko yàlla nangul yaa rabbi yal na yàlla yërëm ko yal na yàlla ko uutu ko ci njabootam yal na yàlla uutu ko ci njabootam yal yàlla taxawul gannaawam yal na ko yàlla taxawu gannaawam fa muy jëm yal na fa fekk lu ko gënal fa mu jëm yal na ko yal na fa fekk lu ko gënal yaa rabbi li taxoon mu jàpp ne dana dem foofa li taxoon mu jàpp ne dana dem foofa yëpp góorgóorlu na ci ci dundam lépp góor góorgóorlu na ci ci fii ci dundam. li ci njëkk mooy na gëm na yàlla. li ci njëkk mooy na gëm na yàlla. li des ci kaw li des ci li des ci kaw li des yëpp nag. li des yëpp nag. ay tono rek la yum doon def. ay tono la yum doon def. ndax julli yeeg julli yeeg oor yeeg yëpp ay tono la. ndax julli yéeg oor yeeg yëpp ay tono la. yàlla ñu wax ci alquran. ndax yàlla ñu wax ci alquran. zaadatum imaana ñi nga xam ne gëm nañ yàlla yàlla daf leen di dollil seen ngëm yàlla. ñi nga xam ne gëm nañ yàlla yàlla daf leen di dollil seen ak ngëm yàlla. dolli googu nag mu ngi feeñ ci jëf yi ñuy def ci àddina. dolli googu nag mu ngi feeñ ci jëf yii jaam bi di jëf ci kaw àddina. rawatina nag la ca aju jëm ca yàlla. rawatina nag la ca aju jëm ca yàlla. muy njaamu gi. muy njaamu gi. si. muy sikar si. muy alquran ji. muy alquran ji. muy jokk mbokk gi. muy jokk mbokk gi. def lu baax. muy def lu baax. lépp loo xam ne yaakaar na ne baax na. lépp loo xam ne. yaakaar na ne baax na. mu def ko ko mu def ko. jaam bi di ko def. loolu mooy ndollal. loolu mooy ndollal. te nekk na ci. jëf yooyu. yal na ko yàlla nangul yaa rabbi. yal na yàlla fay ko. yal ay jëfam. yal na yàlla mu loo ñu. ñi nga xam ne. ñi nga xam ne. ñoo des gannaawam. ñoo des gannaawam. salaamaaleykum wa rahmatullah